billaahi wallaahi tallaahi fii laay waxee ndax fii sama dëkk baay la samay dëkk mbokk taalibe la fii mooy kër yoro dëkk alaaji mooma seen su fekkee ne man aji saar nettalewuma ne ma lii nekk ay fen la bu ma àgg kaw di ngeen dégg audio yi te dinaa ko génne raxalu ma dee kenn mënu maa rey kenn mënu maa ba may dawal sama oto man kenn maa jógee Dakar samay àndandoo ñoo ëpp doole tuuf nguur dama bëgg ñu tënku ci dëgg te xam ne ñun ay nitu daara lañ am ci kenn koo xam ne nee na su fekkee xaalis nga bëgg kii xaalis moo tax muy wax bëgg a dóor barke Cheikh Ibrahima ba bërki démb yàggul dara hôtel Méridien lañ ma tegal cent du ma tudd ñooñu cent lañ ma tegal soxla wu ma ko ndax man du doomu sëriñ boo xam ne ba ma juddoo ba léegi musuma laaja addi maa ngi koy wax ci kaw te sama vidéo yëpp chaque jour moo tukki fenn laay tukki mooy Nigéria gàmm la quatre jours quatre jours